juróom benneelu xaaj bi ci juróom benni xaaj yi noonu yuusufa mu arimate te nekkoon kilifa ak nikodem farisen ba seeti woon yéesu genn guddi jël néew bi ñu sàng ko ba noppi dugal ko ci bàmmeel bu bees yonent yàlla esayi waxoon na suul nañu ko ci biir ñu bon ña rob ko ak ku bari alal gannaaw bésum noflaay baa ngi doon jege si ñu tëj bàmmeel ba ak aw doj wu mag pilaat yebal ay xarekatam ñu wattu bàmmeel ba ndaxte yawut yi dañu ragaloon ne taalibe yeesu yi dinañu jël néew bi mën a lay naan yeesu dekki na fii la nettali yam léegi malaaj leen fukk juróom ñeent lu xew ak néewu yéesu yusufa mu arimate ak nikodem jël nañu néew bi defar nañu ko sang ko denc ko ci ab bàmmeel bu bees ñaar ci seen xalaat lu tax yàlla bàyyi ñu rey yeesu rey bu metti boobu mbind mu sell mi nee na ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doom ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gudul jeex te doo sànku mukk yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar doon na sarax bi mat sëkk moom rekk mooy ki amul bàkkaar ku mën a fey sunuy bàkkaar ngir nu mën a taxaw fa kanam yàlla ñaar fukk ak benn ci seen xalaat ndax am na weneen yoon wu nu mën a jaar ba mucc lu tax déedéet yàlla mi jub mënunu baal ba nu bokk ci jataayam fekk feyunu sunuy bàkkaar ba mu mat sëkk